asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki amateur yi ñu suivre ci Leewtoo TV fii nu nekk nag mooy yaraax yaraax am na aan am na fu ne yaraax daal a ngi nii mbooloo mi ngeen di séen nag Moussa Ndoye mooy open press dimanche lay bëre le 28 avril mook Garga Mbossé buy Parcelles Assainies kan moo ko tëgg Pape Abdou Fall borom Pape production mais man Talla Ndiaye li ma lay laaj yàgg yàgg ak Mourou Mané est ce que mbooloo mi ngeen di gis est ce que lii rek xaj na Iba Mar waxatuma la la Garga Mbossé yor. ak combat yu ndaw ya xoolal lii Talla Ndiaye yaa ko xool gis nga yaraax gépp a ngi nii génn kon daa mel ni daal lamb ji moom loolu la waaye man a wax bu la fa deux heures fekkul maanaam quatorze heures wala treize heures yaakaar naa doo dugg waaye nañ dem ci biir ñu xool Moussa Ndoye lu mu indiwaa waa yaraax ay lebu lañuy doon tey Talla Ndiaye ba buñ fiy jógee ay lebu lañu piir dëkk fan yaraax gi sa létt yi nu mu tudd ah xanaa rek noo ko tuddee baax na felaale sànnee ko ba moom ba stade Iba Mar waaw waaw Saal Idi Maam Diop day toj parce que Moussa Ndoye mii yaraax lu juddoo doo la màggee def lu baax waaw waaw baax bëgg ay mbokkam. ay garga ngeen di bëreel de. mais moo li ñuy firi faraare garga day xool nañ feneen. Ah. barki yonente bi. day gaawal day. gaaw dina ko doo dina ko daan. di nga ñëw allah kon ba dimanche bu soobee yàlla. incha allah. taala saret yi borom saret kan mooy dawal saret bi. kuy dawal saret bi yaay dawal saret bi yow. may dawal saret bi ngir askan wu yaraax laa nekk. saret bi day ñëw dimanche. saret bi day ñëw kay. caw sa xiir. waaw xiir gaa ngi nii. gisoo xiir gi xanaa. nu ngeen koy dóore. ah nu ngeen di dóore xiir gi. nu ngeen koy dóore bii si kaw. gis nga ko nii noonu lañ koy dóoree. si kaw Garga Mbossé. maa wax loolu. waaw na par dam rek. cosaan. cosaan wóor te neex. waaw waaw. maa leen di bëggee sama gaay yaa ngongu noonu eh waay toogaay bi xam nga bi toogaay. waaw mais Babacar bii man toogaay la ba. mooy Benkel Talla. dégg Benkel toogaayu naana. lan la bokk ak Ferenkulaay. waaw ah, Ferenkulaay bu la neexee nga ne Benkel. xanaa ñu kat ñi ñoom ñaa def ngoyaan. Ah, waaw booy def ngoyaan yi ngay ndax ñi daan def léegi nii la. lii mbirum cosaan la Talla. waaw waaw Babacar. mën a Babacar Diop metti naa. réew mi eh wala ab xool bonjour. de ami naa naa gele naa laa waa doomu gele laa doomu gele laa Vin, oui. c'est la, la danse traditionnelle, les bouts. Débrouille. Et euh, Rafetna, et c'est le fond de la culture. Donc c'est très beau qu'aujourd'hui encore, elle soit transmise. les, femmes, et les femmes sont braves, et ce sont de vrais artistes. Oui, bien sûr. Bien sûr. oui. Alors, <clears throat> c'est aussi euh, dans les écoles, c'est important que ce soit transmis. pour qu'il y ait toujours l'appartenance à la culture d'origine, en même temps le français. Tu es content Waouh content. Merci. Son nom, c'est comment Ton nom Ton nom. Ma, ah, Sante Burig, Martine Burig. <laughs> cey lii Nokia kaay école Iba Mar Dione la nekk mais nag temps yi dama koy gis xaw sax yaa ngi école de Badajon wala déet Nokia. waaw Babacar ñu ngi lay siyaar bu baax a baax li ñaanal jàmm ah. soo ma gisee fii du dara man maa école de Badajon bu léegi mais dama dégg damay liggéey fii dëgg yaraax Moussa dañoo bokk benn koñ mu doon ku ñàkkati ñaan xam nga ay booy yaraax yi ñoom ñëpp caatu yaraax ñoom ñëpp ñu mel ni ñoo bokk ndey ak baay may liggéey fii dëgg fii c'est normal suy bëre ma man maa école de Badajon ba ndax amul école de Badajon waa di profité di nuyu gars yi fi nekk ñëpp waa di wax waa Bawol aussi am naa combat ak na le 9 juin laay bëri mën a agogo waa di ñaan yàlla yàlla may man bu baax baax di sant ñi may nekkal fii Moussa Ndoye naa daan kan ci bu wër am na lu ci yàqin dañu koy ñaanal sa borom mi nga xam ne mooy maye mu may ko ndam ci kaw Garga Mbossé parce que mu ngi liggéey na bu baax a baax di profité Babacar yaraax yàgguma fi mais soo duggoon fii tey def fi micro central da nga naa déedéet di sant ji fi nekk ñëpp ñi ma nekkal ñoom Ibrahima xam sama di ñaan sama gars yi nekk école yu bëri jën ñu am combat yëpp sa borom may leen ndam ñu fa daan ñëpp ñu leen di féliciter quoi di leen wax ne 9 juin laay bëri ci kattanu yàlla ok wasalaam Babacar bëgg daan bëgg daan ñibbi incha allah. dina yomb wala dina gaaw. non day gaaw incha allah du ma daan incha allah. du daan waaw du ma daan. yow Sode kan. di Serigne sama doomu ndey. Serigne ñu koy ziar. di ko bëggee borom Italie quoi. ak jàmm ak Moussa Ndoye di ko ñaanal suba dimanche yàlla may ko ndam incha allah du ma daan incha allah waaye xam nga xam. yeey ndeysaan billaay yéen xale yi ñoo taar lool laa ilaaha illallaah ndeysaan sama xol bi yaa ci gisul man bëgg naa la lool Fatou dana ko rey Moussa Ndoye dana ko rey Moussa Ndoye dana ko rey Moussa Ndoye ay wala wala tagi dala bacce waaw waaw ne la koy nga ni ay sa nga ni Babacar Babacar sama xarit bi tàllal say bëgg naa ku si nekk nga déglu li may wax bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulah ku si nekk maa ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant maa ngi leen di masaw coono di nuyu waa yaraax bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax autorité yaraax yëpp maa ngi leen di nuyu dalee ko si Babacar Mbengue maire de commune de arrondissement de Hann di gërëm honorable député Fadiouf di nuyuwaat imaamu yaraaxeek naayam yeeg di nuyu kilifa diini yi fi nekk kilifa aada yeeg kilifa cosaan yi di nuyuwaat waa yaraax bu baax a baax a baax a baax a baax képp kuy mbër si nekk yaraax dale ko sunu baay Mbita Njaay sama nijaay jale ko si bàcc mbaay dale ko si kàdd gi dale ko si pafal ku si ne ñu ngi lay nuyu mool 1 bàyyiwuñu kenn su lay dog képp ku mës a takk ngemb nekk yaraax di suma kilifa maa ngi lay nuyu di la tàllal sumay loxo yéen ñëpp bàyyiwuma kenn képp kuy mbër te nekk ci terrain bi maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di nuyu waaye rax bu baax a baax a baax a baax a baax a baax baal naa ñëpp na ma ñëpp baal coono yi metti na xat-xat yi bëri na àq bi bëri na mais maa ngi leen ñaan ngeen baal ma ñaanal ma yàlla le 28 yàlla may ma ndam ku si nekk maa ngi lay dikk loxo pour nga ñaanal ma du nuyu 100 pour cent Yaraax bu baax du nuyu génération ñëpp bàyyiwuma kenn génération sans tabax bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn du nuyu képp ka nga xam ni yaa ngi fi dalee ko di wax ni sama sëriñ muy sëriñ Babacar si yàlla na yàlla yokk ay leeram sëriñ Babacar si yàlla na yàlla yokk ay leeram sëriñ Babacar si yàlla na yàlla yokk ay leeram yàlla na yàlla def jàmm ci senegal def jàmm si réew mi def jàmm ci yarax fii am na di wax ni maa ngi nuyu Tiwaawan Touba Njaasaan Canaba Nimzaat Ñaseen Kaolack bàyyiwuma kenn ba ci Nimzaat ak Yoof waa kër maam Limaamu Laay maa ngi nuyu ñëpp ku ci ne maa ngi lay jox loxo di la ñaan nga ñaanal ma bu baax salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Moussa Moussa andi micro yi Moussa ginnaaw bu ñu la nuyu nuyu waa Yaraax yow woote nga comme ni ko gaa yi di defee teel ngaa woote teel ngaa sant avant dara di xew mais man actuellement li may laaj Moussa Ndoye mooy dama ñëw fi fekk fi benn population boo xam ne dafa bëri trop macha allah Moussa Ndoye relation ak waa Yaraax lan la ba tax ñi ñëpp génn tey ñëw taxaw fii fees dell nii. waaw alhamdulilah rabbil alamin laa wax ndax Yaraax dans mon Yaraax si sama deret Yaraax nee naa man maay soldaaru tey ambassadeur Yarax la drapeau Yarax laay sol drapeau Yarax laay tiitoro drapeau Yarax laay doxee drapeau Yarax laay waxee lépp lu ma yëkkati si turu Yarax la man Yarax ma ñor bu Yarax ma tekki sama ngemb dem defi leneen lépp lu may dugg te Yarax d'accordul damay bàyyi lii waa Yarax ñoo ko liggéey yor seen doom mu yor ko si pépinière ma màgg tey ba ñuy wax Moussa Ndeye di ñaan yàlla yàlla na parce que dañ maa yónni yàkkamti ma te liñ ma yónnee yàkkamti ma mooy roi des arènes. liñ la yónni. waaw dañ laa yónni. nga ne dañ laa yónni yàkkamti la. te liñ la yónni yaakaar naa dimanche la 28. ci lañ la yónni sa diggante Garga Mbossé. waaw Garga Mbossé mi nga xam ne tëkkoonte ngeen fu ne dem nga ba sax jàppee ko ragal. yàlla def nag léegi nga lekk avance am mu lekk sa avance dimanche. waaw waaw man li ma rek man moom dama ne képp ku may bëreel doo ñeme. mënu ma ñeme. foo teg loolu. waaw si si sama gis-gis la rek nit ki da ngay sa bopp man gëm suma bopp moo tax may wax loolu. Garga Mbossé mi ragal nga ko jàppee. non jàpp du ragal mais dama ni doo ma ñeme. mais lan la ñuy ragal si yow lan. ah yaa xam man damay bëre. Ah. waaw damay bëre moo tax man damay bëre kat. xanaa daa am loo àndal lu bokkul ak bëre kese. non damay bëre bëre si wàllu bëre laa lay wax. Ah. amal dégg-dégg. si bëre laay wax. waaw si bëre. du man damay bëre moo tax. kon Garga Mbossé ñemewu la. si bëre bi ñemewu ma de. ci lan waaw ci lan la ñeme ko. si wax la ma ñeme mais si jëf du ma ñeme. da ngaa ji Lac Rose. waaw parce que moom dem na ah. da doon miir te loolu ma loolu loolu loolu moom la concerné rek man moom mbër su ma la daanee pare su ma xarit nga doon mbëri ma bëre la pare yëpp samay xarit lañ. mais moom dafa jàpp ne da doon bëre koo xamante ne mënoo koo daan. waaw moom waaw loolu la gis moom loolu du ma si tontu xam man boobu man booy waxaat si Lac Rose day mel ni dama ko ko daan ba pare di si am di si teg daram lu ñaaw déedéet man du ma daan bare sama xarit ngay doon mbëri ma bëri lépp seen numéro ngi man mais wax ju bëri ji mu jàpp ne yow sa wax daa bëri parce que nee na daaw bare na daaw jéeg bare na fuñ la tourné fuñ la dékkee micro nga ne wax ci moom wax ñëw ngi yaraax sax dugg nga ci nee na yow bi muy ñëw yaraax boobu doo kalaasam te dafa gëm ne ba tey doo kalaasam xëy na nag làmb ñëw na ngeen war a bëri waaw la làmb dabante la yàlla def na moom mu dugg si làmb ma dugg si ba dab ko sant yàlla la troisième fois ma toog xaw ma ma moom moom tey Malick Lamine Samba yóbbu na ko wax loo ko mu wax ba géex te tontuwuma ko. lan la wax. a ah, li mu wax nee na lan ana balaa sa ko booleeg man. Ah. waaw loolu la wax. yow da nga koo gëmul. déedéet na ko dëggal. lu tax li mu wax kay ko dëggal rek. jàpp ne sax da lay néewal doole. waaw loolu àgguñ fa daaw la yàlla rek am doole. noo ci bëre doole néewal doole ci bëre lay wax. non déggoo li ma la wax garga ñaar laa ko nawloo ah. muy li muy doon nit ma doon nit. li mu doon taalibe Serigne Babacar Sy ma doon taalibe Serigne Babacar Sy mais leneen lu jëm ci côté bëre nawloo ma ko si maa ko dàq lu mu bëgg rek maa ko dàq. nawloo woo ko lekk avance am. waaw nawloo ma parce que maa ko dàq bëre. Moussa Ndoye foo teg ne yow da nga mës a bëri gàtt na yaa ko dàq ñun ndaanaan yi déggoo ma képp ndaanaan maa sa ndaanaan lu mën ngeen déglu di nuyu werax bu baax di nuyu suma baay di ñaanal suma baay yal na yàlla yeesal yërmande si kawam di nuyu sunu xalif général xalifa Ndoye yàlla na ko yàlla lafal cat mais yéen ñaar bu ngeen xeexee nag wow bëri ngay wax te garga gis nañ ko mu dóor fi ay mbër sax ñu dem ardoog jaare fa làmb jeex de sant yàlla dóor quatre personnes ñu daanu wax nga dëgg Lamine waaw comme dóor na quatre personnes ñu daanu moom loolu moom la concerné war mooy def li ma bëgg def rek laay def dóor ah yàlla naa ko dóor mu daanu am na ñu la jox favori bi fi ñëwoon léegi maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak seen ak magam mais sama yaay yi nga xam ne mooy groupe ndaw raab bi ñoom ñëpp ban yow abib yi daa bëri de ban abib abib laay nuyu ah. waaw abib l'écran lu ngeen seq abib l'écran suma doom nday la suma lépp la suma xarit la suma lépp la waaw lépp laa préparé combat bi lépp laa préparé bu ñëw baax na man awma lu may bañ nonga daara rek laa lu ñëw baax na combat bi man naa yàgg mbir yàlla bu yàgg bëggee mu yàgg mu yàgg bëggee mu yéex mu yéex. yow bu la ci gënal bu la ci gënal yow. yëpp entraînement ñaar yëpp. ma dégg la sànq nga tudd fi ay mbër ay kàddu gi ay sulay mu mel ni da ngay woote wàllu wala nu mu demee noonu. ñëpp ñoo nekk sama ginnaaw ndax ñëpp yaraax la ñuy ngémboo. ñoo ñoo ñëpp ñoo nekk sama ginnaaw. mais ga parcelle la dëkk de te waa parcelle ñoom Modou Lo ci ginnaawam. waaw d'accord amul ñoom Papa Sow ñoom Zos. d'accord amul benn problème di di wax ni tey li ma sol Jibi Diouf moo ma ko jox di rakk si Nguuda Sarr Ali Dia moo ma jox lii des lépp Ali Dia di sama xarit di lépp moo ma ko jox waaw Ali Dia ak Djibi Diouf tay ñoo ma décoré mais sa diggante parcelle nga xëj fi ak waa parcelle tey ñu xëy xëy gis nga lekk avance waa parcelle da ngaa ci la nga nekkoon wala sëñ bi bàyyi ko mu wax ci lii côté boobu côté boobu côté parcelle man du si wax garga parcelle la dëkk waaw moom parcelle la dëkk man njarax laa dëkk léegi da ngay bëreeg mbëri parcelles yi ko damay jëlee sama roi des arènes ñu indi ko biir fii ci biir yarax mais sa relation waa parcelle relation relation la mais dama ni ci côté parcelle duma si wax parce que man dama laa fekk ci néeg Lamine mi mooy seere Modou Lo toog Yékini Senior toog may wax seen combat gars yi ne bàyyil noonu far nag nga ñëw jël koo xam ne moom Modou ñoo bokkoon benn écrit muy garga amul benn problème lu ne am na fi li si kanam raw li bët nan dem ba si kanam rek le 28 waaw. lu nëbbu woon lan moo nëbbu. dara nëbbuwul mais nañ dem rek yàlla baax na waaw. kon la nga waxoon ne roi des arènes bu nekkee ci Papa Sow sax nga nga ko da nga caa jóg. li ma wax dafa leer dama ne roi des arènes. fu mu nekk dinaa ko jëli indi ko yarax. bu nekkee parcelle. fu mu nekk dinaa ko jëli indi ko yarax. kon Moussa da nga xam ne soppi ngay wax de soppi nga wax in de. du ma wax muy tuxu déggul li ma la bu baax fu roi des arènes nekk dinaa ko jëli indi ko di wax di wax carrément. parce que lamba non Iba Mar man xajuma fa du ma mbëri Iba Mar mais. situation obligée falaa war a mais arène nationale bi dama pour feesal ko ah, arène nationale bi dama param pour feesal ko léegi wooteel te nga xool caméra yi Moussa ne en face suma entraîneur ñëpp maa ngi woo ñëpp techniciens yi fi nekk yëpp maa ngi nuyu di leen sant waaw di nuyu Babacar Mbeng bu baax a baax Fatou Diouf Awa Niang Ali ñëpp maa ngi nuyu Pape Diouf Ndongo Faye ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn ku si ne maa ngi la sant di la gërëm ku si ne lay sant di la gërëm di wax waa Baasul waa Baasaar bàyyiwuma kenn di wax ni Linguère Gaye Linguère nuyu bu baax a baax a baax Wali Ndiaye si biir daba daba baabu maa ngi koy woo di woo Ayda Mbay di woo Xadi Jibi Jibi Jaaw di yaa Faatu Gay Ndoy Faatu Gay Ndoy ñoom ñëpp maa ngi woo si combat di woo ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, tey jii waa Maris maa ngi woo ñëpp waa Dalifor maa ngi woo ñëpp waa Basul maa ngi woo ñëpp Fama Gaye suma xarit maa ngi koy woo waa Joal. boppam waaw yow nga sa kaala gu weex tëkk takk ko sa baat secret kaala gu weex gi ci bopp bi gi ci baat lan mooy problème dafa xew kaala gi ci bopp bi gu garga gu weex yow sa gos sëñ bi Moussa doonu bàyyi xel tuuti wala dama ne kaala gu weex gi nga yor ci sa baat moom mu yor ko ci boppam lu xew ci secret kaala yi. waaw kaala gi sama papa ma ko jox rek waaw sama baay ma ko jox muy sama papa Ngóone Nguura Sarr moo ma ko jox di wax ni caatu yaraax gis naa la mos jàmbaar suma rak gis naa la bu lo soddu Pape Diop ak mbër yi nga xam ne ñoo nekk si yaraax bi ñaax bàyyiwuma kenn ñoo ñëpp gis naa leen jël nga jëf naka yaa suma xarit Serigne Ndour kaw guddi na bu Dalifort day bëre yàlla na ko yàlla may dem jour bi di wax ni le 28 nee na naa dëggal sama bopp nu dëggal boppam ala cadar am na looy moytu ci